liggéey bii bu ñu demee ba di ma ci tudd yaa ma ci jàppali dimbali ma ci moo taxoon ma ànd ak xale yi ñoo nekk nii ma xam ne taalibe yi bëgg nañoo siyaar si bëgg nañoo egg si waaye mënuñu ko maa ngi jégalu sax bu may tëddib ab lum dara taxut nag mbake lu dul sant ci Sëriñ Tuubaa xam ni nu ma mel moom la ak lu ma am moom la te it li may def sax dama koy poos rek ndax lim ma jox mbake joxuma la ko waaye ñaanal ma rek man de Lamine mii ñii toog nii bu daga doon tey jii ñu tër ci kenn rendi ko na maam Cheikh Anta defoon dinaa ko def barke Serigne Touba wala bala ma leen a rendi sax rendi sama bopp ndax moo ma gënal loolu lépp nag sante ko sëriñ Touba sama addee jii nag maa la ko jox ci sa liggéey yu baax yii nga nekke bari wut xeeb naa ko ndax dama doon sant ca ubbite ga ma ni damay santaat. tey ñaan nga ñëwaat Mbàkke ma santati dimbali ma ngir jëmi Serigne Touba ak mbaaxug yonente bi nga dellu waat nekk fi rek ñeenti walis si bu ci ne ñaar eh, million la def ak juróom fukk muy un milliard maa la ko siyaaree te di ko xeeb xeeb ko lool